yeetal ci vidéo bii nag yeetal mu ngi leen ciy présenté kumba am ndey ak kumba amul ndey dëkk bii ngeen di seen ak kër gii ngeen di gis ñaari wujju ak seen ñaari doom yu tudd kumba te ute loolu ñoo fi dëkk benn wujju bi dafa yar doomam mu nekk xale bu rafet bu yaru bu teey bu fonk mag bu déggal mag bu nangu jàng te muus loolu ba ñu koy tuddee kumba yaru keneen ki nag doomam bi daf ko yaree sagoom mu nekk xale bu yaradiku bu tayal te nanguwul jàng ci noonu nag ki nga xam ne yarul doomam bi ci la tàmbalee di iñaane kumba bu yaru yàlla def nag benn bés yaayu kumba bu yaru mu daldi feebar feebar bu gàtt mu jaaree fa daldi génn àdduna tànta ji nag bi bés boobu jàllee ci la tàmbalee yow eh yow moom lay waxal xaw ma looy xulli sa bët yi dee ma xujj di ma xool ni mel ni lu ma bañ a tudd xaw ma danga ay gaaf xaw ma lan moo la dal man ak sama doom nag doo ñu laal doo ñu jege te xamal ni bis ni ki tey bis bu guddeetee na nga jël sa basang lali ko ci biti dootoo fanaan ak ñun ci biir kër gi wax naa la li ma lay wax nag. depuis boobu nag tante ji nii la dëkkee ak. gaawal nga jël morso bi nga fomp bisaab bi sama kumba tuur yow lii mooy sa fomp dëgëralal sa loxo yi nga fomp fii ba mu set laa wax bëgguma fee gis benn taas bu yàlla sàkk nag kumba yaru fajar la yeew mu nekk di bale di fomp di root di uti mat di togg di raxas liggéey kër gi yépp moo koy def te taxul tànta ji fu mu toll kumba gaaf demal rooti kumba gaaf demal uti mat kumba gaaf gaawal nga rootali sama kumba ndox bu muy sangoo kumba gaaf demal génneel sama kumba foowukaayami kumba gaaf solalal sama kumba dàllami eh waay sama nenn tuuti sama xol wala bëgg wax ma loo bëgg ma defaral la tey nag kumba def na liggéeyam comme ko doon defee saa ne waaye bi mu demee ba guddi jot lii la ko tànta ji wax ku gaaf tey sa defar bi dara baaxu ci man ak sama kumbana ñoo ngi nii di tëddi te bëgg naa balaa may yeewu fóot bi nanga ko fóotaat ba mu set wecc kër gi nanga ko defaraat ba mu baax ndabi nag dama bëgg nga raxasaat ko ba muy melax kumba nag guddi bi yépp dafa nekk di fóot di defar kër gi di raxas di bale ba yàlla def fajar jot waaye tànta bi mu ñëwee lii da la ko wax ee eh, waaye ndaw sàmba man moom damay jommi wal bëgg a waar waaye yow kumba ay gaf yow lu nan nga ma yabee ah may wax na nga raxas ndab yëpp wàccal ma fi kudd bi léegi kudd bi ko mu fi wàccal man nga ko wàccal gis naa ni léegi nag su may wax yow doo ma waaye xamal ni da ngay génn kër gi dem ba géeju ndaayaan nga raxasal ma fa kudd bi yaa xam nag lu la fa dal sama yoon nekku ci waaye kudd bi dama bëgg balaa ngay ñibbi si ci kër gi na set wecc ay ca ci raxasi ko laa wax ca géeju ndaayaan ci noonu nag la kumba yaru daldi tegoo ci yoon bi muy dox di dox di dox suba ba ngoon jot fekk xiif na mar na sonn na jaaxle na wéet na ba yàlla def mu dégg dara di onk bi mu doxee doxee ba egg nag mu gis ne ka ndekete ak benn guy la bi kumba nag bi mu déggee li guy gi wax ak yaru bi mu yaru ci la gaawantoo mu ton di salte bi ko waroon yépp maa ngi nooyi ni ma bëggee nooyi ay xale bi li ma defal nii yàlla na la yiw yàlla topp foo jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm yàlla na sedd mbaari yaa ngi nooyi bu baax danga bëgg ma bës la danga bëgg ma defaral la leneen ah papa guy man kay fu ma toll nii soxlaatuma dara lii ma la jox nag boo xasee ba lekk ko ci sa dund dootoo feebar te tamit dina la aar ci lépp lu bon. jërëjëf papa guy bu soobee yàlla dinaa ko defee ni ma ko waxee. kumba nag bi ko guy bi sante ba pare ba jox ko li mu koy jox ñaanal ko ci la teguwaat ci yoon bi. muy dox di dox di dox ba benn waxtu mu daldi dégg luy wax bi mu xoolee ba xoolaat mu gis ne ka ndekete benn cit la bu nekk di togg boppam ay waay taal na ñulug na sóor na yàq ak yënga rekk a ma dese ku may jàppale ni ceecin danga bëgg ma defaat reneen danga bëgg ma yokk ndox wala ma yokk ay matt wala ma ëpp la bi kumba jàppalee cin bi nag ba mu togg ceebam bi ba pare nag ba mu lekk ba suur ci la teguwaatee ci yoon bi muy dox di dox di dox ba yàlla def mu daldi seen benn kër bi mu demee nag ba egg ci kër gi mu daldi gis benn màgget sama sët luy sa tànk fii nan nga def ba egg fii salaamaaleykum maam booy man de sama yaay moo ma yónni kudd bii laa war a dem raxasi ci géeju ndaayaan kumba nag ak yeru bi mu yeru bi mu nuyanteeg màgget bi ba pare mu daldi koy laaj ndax mën na ko dimbalee bi ko kooku waxee waaw ci la duggee ci biir kër gi mu nekk di bale di raxas di minaas di fomp di ranger di fóot ba yàlla def ngoon daldi jot ci la ko màgget bi daldi di woowee dal koy jox benn yax moom nag ak yeru bi mu yeru laajul kooku dara kooku ne ko na ko ko toggal kumba nag bi mu jëlee yax bi daldi koy def ci cin bi mu daldi nekkaat ñam ba mu fees bi mu paree nag ba indi ñam bi màgget bi daal di koy jaxaat ñetti pepp ceeb ak yeru bi mu yeru tamit waxaatul dara mu daldi jëlaat cin bi mu teg ko ci xal bi daal nekk di ko togg ci saas yi cin bi feesaat del ceeb bi mu toggee ba pare nag ci la ko màgget bi ne nañu lekk ñu lekk ko mu nekk ñam bu neex loolu bi nga xam ne moom bi mu juddoo ba tey musul lekk lu neexee noonu sama sët gis naa ne ke yow xale bu yaru nga te xale lépp lu ko yaram mayul du ko ko xañ te xale bu yaru rekk mooy am lu baax moo tax dégg naa ne nga may ne danga bëgg a dem dexu daayaan waaye boroom dex bi ku soxor la bépp nit bu fi ñëw day bàyyi ba guddi mu yónni ay nitam pour ñu lekk ko waaye yow dama lay jox ñaari puso yi bu guddi jotee bu ñu ñëwee boo leen ko ko joxoñee dañuy nelaw ba përsët su ko defee ci ëllëg sa mën nga dem ca dex ba te dara du la dal kumba nag bi guddi jotee ba nit ñooñu ñëw ci la def li ko maam bii wax yàlla def ñooñu nelaw ba bërsëg bi bërsëg jotee nag ba ñooñu dem ci la kumba demee ca dex ba raxasi kuddam bi mu raxasee kuddu bi ba ñibbisi nag ci la ko maam bi daldi joxe ñetti nen benn bu xonq benn bu bleu ak benn bu verte dama bugg nga déglu bu baax nag nen yi nii nga koy defe bu verte bi ngay jëkka toj boo doxee ba mu ëpp waxtu nga toj bu xonq bi boo demee bay waaja egg seen dëkk nga toj bu bula bi kumba nag ak yeru bi mu yeru ci la dégloo bu baax li ko màgget bi wax mu daldi defee nen yi comme ni ko waxee bi mu doxee ab diir ci la tojee non bu wert bi ci la ñaari soldat di génn ñu daldi koy nee ñun ñoo lay aar sa ngiiru dund bi mu doxaatee doxaat ba diggal yoon bi mu daldi toj nen bu xonq ay mala génn mala yi bi ñu demee ba koy bëgg a lekk soldaat yi mu àndal daldi rey mala yi ci lañu teguwaatee ci yoon bi ñuy doox di doox ba ñuy waaji egg seen dëkk mu daldi tojaat nen bu mujj bi ci la ay ñaari jaam génne ñu yore alal bu takku bi nga xam ne mën na ci dund ba dundal ci ay sëtam ñooñu ne ko fu mu toll nii xamal ne sa coono jeex na te sa ngiiru dund ñun ñoo ñi lay toppatoo noonu nag la kumba daldi teguwaate ci yoon bi ndekete tànt bi ak doom bi ñu ngi woon ci buntu dëkk bi di xaar ab néewam buy ñëw bi ñu demee nag ba seen li mu yoree tànt ji am lu ko metti loolu ci nag ci saa si la woowee doomam bi waaw kumba sama xol gis nga lu kumba ay gaaf mi am mun nga am lu ko raw yaa ko ëpp wërsëg gën koo juddu ah mun nga am lu ko raw yow tamit jëlal sa rek te nga dem géeju ndaayaan te da ngay am sax lu ko gën nag ci noonu nag la kumba am nday daal di tegoo ci yoon bi mu nekk di doox di doox di doox suba ba ngoon jot ba yàlla def mu daldi dégg kuy onku mu gis ne ka garab bi ko kumba doon wax ku may dimbalee munu ma nooyi mu dindil ma salte di ma wër ku may dimbalee <laughs> man de ku fekk fii may jàppale ay garab xaw ma lu may wax xaw ma guy nga xaw ma loo doon yow du ñeges nga tontu ñàkk nga kersa waaye xamal ni foo jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm yéen ak sa ñaawaay man sama yaay jox na ma lu ma lekk te kumba gaafoon na ma yoon bi man soxlaw ma la soxlaw ma sa ñaan bi loolu jàllee nag ci la kumba am nday daldi teguwaatee ci yoon bi muy dox ba benn waxtu ci la gisee cin bu nekk di togg boppam ay waay kan moo may jàppale yëngal ma yàq sama ceeb bi ku may jàppale Como jàppale mu yéen yow moom loo doon xaw ma cin nga xaw ma ndaal la wax na nga naa naa la jàppale nga togg toggalal sa bopp man soxlaw ma la xam naa fu ma jëm bi loolu jàllee nag ci la kumba am nday daldi teguwaatee ci yoon bi muy dox di dox ba mu egg ci kër màgget sama sët lan moo doon sa tànk man dégguma sa nuyoo wala sama nopp yi la fan la su ma la nga nuyu ma yow mooy yéen xaw ma meer jaar xaw ma meer fange man soxlawu ma la neni laa soxla kumba wax na ma fu may jaar ci noonu nag la ko màgget bi daal di joxe ñaari puso yi mu wax ko ko na ko defee comme ni mu ko waxee woon kumba bi demee ba ëllëg jot nag kumba am ndey ba màgget bi daal di koy jox ñetti nen yi ak yàkkamti bi mu yàkkamti dégluwul sa kooku lim ko doon wax. man xaw ma sax nu ma lay tuddee xaw ma meer benn bëñ xaw ma meer jàll bari nga wax trop waaye xam naa li may def. ci noonu nag la gaawantoo teguwaat ci yoon bi ak yàkkamti bi mu yàkkamti ci la tojee non bu xonk bi ci la mala yi nag daal di génn daal di koy lekk. benn picc nag bi fa nekkoon benn desutu yéreem bi mu daggee ci la ko jël daldi koy sàndi ca buntu dëkk ba fi ko yaay ji doon xaar ci la yaay ji nag xamee lu xew mu am lu ko déet du kumba lii du sama xol woy maa ko teg sama bopp bi loolu jàllee nag ci la doomu buur bi déggee waxu waxu kumba amul ndey ñuy wax kumba yaru mu daldi ñëw takku ko muy dund dund bu neex dund ba dundaale ay sëtam mu nekk nit bi nga xam ne moom lañu gën a bëgg te lañu gën a naw ci dëkk bi tànk loxo nopp bakkan bakkan baat bët gémmiñ la la la la la la ñaari tànk la am ñaari loxo laa am ñaari nopp laa am ñaari bët benn bakkan a gaaw gémmiñ ñaari ñaari loxo laa ak gémmiñ xale yi na gën gaaw na gën gaaw na loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ ñaari tànk la am ñaari loxo la am ñaari nopp la am ñaari bët benn bakkan ak gémmiñ xale xale sonn naa sonn naa day na day na day na day na caabi tàbbi na aljanna ku ko njëkk a yàlla nga dem aljanna